asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen déggee yéen ñu suñu si Wassare Lamb Wassare TV kon ni ñu koy defee rek à chaque fois euh, yéen ma ko laajoon wax dëgg yàlla nag ñu def ay recherche ba indil leen ko tey nag fii si buuri ñëw seet si champion mu nekk koo mu def benn sorte bu explosif dëkk Demba Ndiaye naam jël nañ ki nga xamante ni moom mooy Pape Ndoye tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom muy Jackson Junior. mais di leen bëgg bu baax maa ngi lay nuyu. di bu baax sant di ñëw sant yàlla bu baax di julli si yéen bi di waajur di ñaan suma yaay fu mu tëdd yàlla na ko gën a fu di ñaan suma sëriñ sëriñ Moussa Wassé yàlla bàyyi ko ba si kanam kanam kanam di ñaan jàmm ñëpp. di ñaanal waa buun jàmm di ñaanal waa Giwaay jàmm di ziar sama ama Baba laa jóg sama tàmbul major bi bàyyi ko bu baax borom am na solo Jackson Junior bu Géejawaay moo wax mhm. euh, euh, dafa ñëw ñëw ci li nga xamante euh, ñu mhm. gis leen daaw di leen benn ba après gis nañu ay sa yeneen combat mais dañu ñëw ci xam te ni moom Jackson Junior mu Jackson waaw Jackson benn tout tànk la rek waaw comme mu ngi ci tollu jàng nekk géewaay xam nga nekk buun diggante géewaay ak buun mhm. ak waalo waaw nekk tout tànk xam nekk samay ginnaaw grand frère ñu ma teg ci kor rek xale bu jàng la daal bu débuté. Mhm. Hmm. wax euh, sa enfance Dakar nga lu bëri daanaka waalo laa ko defee. ak hmm. sa def nañ affaire xale rek waaw jàng nañ fooy nañ làmb jàng ba mu ji làmb ji ëppal ñu doole ñu bàyyi jàng bi ama suivre làmb ji ñëwaat Dakar kon ne di mbaba di jàng mécc tamit ama ba léegi nii tamit ñoo ngi si lépp ñoo ngi si jàng bi ñoo ngi si métier bi ñoo ngi si làmb ji. Mm-hmm. Mm-hmm. ban la bàyyi. cinquième secondaire. secondaire. Mm-hmm. moo yàq si jàng. làmb waaw bokk na si tamit quoi. Ah, Jackson en général euh, waalo la nekk di ñëw Dakar. mais ñëw boobu noonu vacances la du ñëw wala waalo sa euh, sa waalo nga débuté wala fii nga débuté euh, ñaari phase yooyu

bëgg naa ko Jackson Jackson moo ëpp daal ba may ba may tudd boobu xama boobu ay meew laa bëri yàgg na ay 300 affaire yooyu noonu mais Jackson mi daal xam naa yàgg naa kaa tudd suñu benn grand frère maa ngi mu tëdd yàlla na ko gënal fu mu moo daan ñëw wax loo xam nga mbokk la si tamit suñu mag la si man ñoo xool ba suñu bopp rek tuddee suñu bopp mais yàlla moom ko xam nga ñu ko ñaanal fu mu tëdd tamit yàlla na ko gënal fu mu jógee wala amoon na ay mbër yu toj yoo xamante ni euh, xamal nañ leen ci làmb bi nga xamante ne bëri ak ñoom wala ay kii rek ay bëri affaire nii rek mais am na ay kii bi ñoom trompeur ak Pape Cameroun am na mbër daan jógee Dakar di ñëw foofu di bëri si mais boobu du génération quoi ñoom ñoo ma woon foofu hmm. sa ñëw Dakar lan moo ko woon waaw Dakar fi ñëwoon nii rek waaw pour jàng si métier si wàllu làmb waaw hmm. nekk après nga ñëw. ñëw suivre métier bi di bëre di jàng métier ba léegi nii am ñoom am ñoom baaba dañu teg si code waaye dañuy bopp Dakar tamit. ban métier nga doon jàng. man carreleur laa woon. Hmm. ba léegi am na ay boy. Hmm. te beneen bi mooy am na ñoo xamante ni dañuy yow ba nga ñëwee géejawaay joindre leen foofu noonu sax nan la demee ak euh, yeneen mbër fa nekk parce que am na ay mbër fa nekk su ma ay ñoom Pape Mbaye dañ doon mbapat hmm. ak yeneen ñoom Pape ñoo ma xawoon mag ñoo ma magoon quoi ñoom bokk ñu woon génération sax xam mbapat bi waaw man tout temps la quoi ñoo naa fekk ñu ñoom ñooy bëri aan sax bu ñuy bëri mbapat hmm. waaw rek boo jógee dëkk li nga xam ne du bëri bu ñëwee ñoom am jàppale dugal si roxo yi. kamoon taxaw laa waaw ah, benn tëx la laa woon rek xam nga. Mm-hmm. daa tax la ñëw fas fi ñuy bëri si dafaa ñëw buun tamit bëri si dafaa dem géewaay bi bëri tournant foofu tamit quoi kenn mais suñu jàmbaar rek suñu gëm moo tax xam nga ñëw fekk tourant bu kenn xamul ñëw bëri si tamit jël ko bëraat ko jël ko xam nga gars yi commencé ñu xam géewaay ñu commencé di génn nànk nànk quoi. Mm. boobu mbëri toj fii di géejawaay wala soit Pikine ci banlieue bi am na ñu doon sa der doon ñoom parce que ñoom ñoo magoon mm-hmm. man ñu may man ma doon ñu si bëri ab arène sax bëreetul. ba gis xaw ma am ñoom tamit bëriwuñu bëriwuñu arène bëreeguñu arène quoi. Mm-hmm. rek maa ay grand frère yu teel bëgg a laamu ñoom ñoo ma teel a poussé arène bi. Mm-hmm. mais samay morom ñu bëree bëree ku ñu arrêté wala ay benn combat ñaari combat. Mm-hmm. lutte avec Fatou mu dugg la ñu mm-hmm. mm-hmm. dikkee ci yow am ñu bu sax mbokk bu bëri amaana bu dul Jackson bi nii. Jackson gis nañ ko bëgg ko xam muy ànd ak ñoom am ak ñoom baaba xam ñëw waalo gisante foofu xamante foofu noonu na depuis lors waaw ñu nekk si tamit bëgg làmb ba jii nii ñu siy poussé bu la doole loolu làmb benn mbër ko def benn nit du ko def da lay xam làmb yàgg si làmb bëgg ko ñoom ñëpp làmb mooy moo yàq seen lépp ñoom tamit ñoom ñu dara loolu xam nga man chaque jour dama koy wax du ma ma ma neex ndax ñu jàpp jeg suñu topp ko tamit def suñu mag tuddee ko suñu bopp tamit xam nekk si ginnaawam bëgg làmb ba bis ni tey jii waaw ñu ngi ci ba léegi mokkal guñ. 2016 moo ko tëgg. non xamatuma ko tëgg nag sama premier combat. Hmm. Ah. waaw. xamatuma ko tëgg mais Paa daal moo ko engagé woon Paa Paa Pikine. Hmm. ñaata promoteur woon. ñaata nga fayoo. boobu isa ma woon diggee diggee dañ ma joxoon daa mel ne ma jël sama avance. ci ticket yi nga jaay jël sa avance. waaw ticket laa jaay daanoon. fan la woon. stade Ndiarème woon. stade Ndiarème. après ba nga bëree sa premier combat. ñu jox la ay ticket nga jaay ko. ak tamit mbër bu ndaw li mu méttee nga daan sa premier combat am na ñu bari bu ko réussir. après dañ ko jàppee woon comme mbapat rek après xam nga ñu nekkaat si affaire yi nekkaat si entraînement yi waaw xaaraat suñu déwén ñu duggaat si laamu après sa deuxième combat. man ak Boña 3 la Boña bu nekk Malika. moom laa bëri laa de mm. boobu Kanji moo tigoon. Kanji benn. Mm. ndeysaan ñu koy nuyu au passage. Mm. ndeysaan dafa xeewi nag dafa kii wutul tuuti. nga boobu sax xew gu waaw. bëri comme booy bëree ay combat yi nii. di xew xew tuuti. premier combat deuxième combat yëpp nga mhm. hmm? boobu ba léegi xewaguma sax ba léegi nii nii xewaguma. non xam nañ ni xewagoo mais mhm. après nga commencé di def. waaw gën am confiance ci mhm. man ak kii cosaan cosaan du liru énergie. comment vraiment daan. kon da waaw teg naa ay six victoire doxaare am defet. sixième combat yaakaar naa. tigre tigre bu lamsaar. bi waaw beneen junior. combat boobu fu combat boobu non fa tëggoon nag de waaw mais daa mel Abdoulaye Khawaat Diarra moo ko engagé Kangam. Kangam. ni combat boobu ni mu demee ak ampleur combat bi ni mu demee. combat boobu waaw tegal nañu ci victoire nekk tout temps nga xam mhm. waa di ñëw ñëw doon naagu. waaw mhm. bëri nañu war a bëri xam nga kànga mhm. ah. maa waroon daan daan ma. daan. léegi yow ban ban erreur nga def que ni ah, kàngam fii tey bu ma egg sori na soit am na foo xamante ni fi mu toll. non ñëw na nekk tout temps tamit xam nga yàkkamti bi bu ko teel jeexal xam jàpp ni koo dajal ma waa ko man bëree ñoo ko si xel mu sell quoi bëree bëree maa ko mën daal moom mu nekk ndaanaan nekk jàmbaar waaw trop ñu dund ko tamit xam nga dégg lu nekk tamit ñu ñëwaat bëriwaat étudiant daanaat ñu teg la am dëgg waaw dara am <laughs> boobu lu demee étudiant euh, sa euh, sa euh, ngeen am ba combat boobu bañ tëgg combat boobu noonu yéen ñaar da ngeen laale wala. non combat nekk si affaire yi xam ñëw rek am defet bëgg fay defet bi. Hmm. xam nga yaakaar day nooy. waaw la <laughs> nooy. xam na nooyul sax mais nan ñëwoon pour fay defet bi rek. mais est-ce que boobu réellement xamoon nga ko. xamoon naa ko nii tuuti rek mais pas tellement quoi. xawoon na euh, <laughs> waaw. ma fay waaw. Mm-hmm. ma <laughs> ma fay waaw. Ah, léegi après deux défaites yooyu nga teg bu bëri. Mm-hmm. nekk ci dynamique de victoire. Mm-hmm. gars yi dina xam macha allah ngay dem di dem te gars yi dañ ku daanu day xaar. waaw daf ñu war naat lu bëri si àdduna rek. àdduna chaque jour ay jàngal la lépp da ngay jàngal man xam boo xamul defet xam ay victoire nga jéeg-jéeg commencé am ay defet xam nga wan lu bëre quoi moom bañ lu nekk wan na ma wan na ma ñu may àndal tamit dina tax tamit nga xam ñu la bëgg ñu la bañ ñëpp dina tax nga xam fooy taal sa tànk si làmb ñu arrêté deux pas nekkaat suñu ñu ko Petit Dia fekk ak bi nan ngeen ko bëree yéen ñaar ak ban erreur nga def bu la daanee. waaw comme dab rek dama ñëw arbitre bi la ma dox si kawam dóor ko mu arrière moom tamit bàyyi ma combat bi bi ma dox si kawam xam léegi ma koy nii nag mu wéeru ma quoi mu wéeru ma daanu lépp daal ñàkk tey moo doon yóbbu ak jàpp ne ku ma gis moom maa ko man hmm. après nga bëreeg hmm. waaw ñu arrêté waat ñëwaat xam xoolaat yoon mi waa takkaat daal yi xam nekkaat si business yi waaw xoolaat fu ñuy jaar. Hmm. xam naa samay mbokk samay gaxan ñenn ñi daw ñenn ñi des. kon am eh, waaw bëri woon nañu daw trop sax. Uh-huh. mais làmb loolu ñoo ànd. boo si nekk moom nit ñi dañuy ñëw mais boo si nekkul tamit duñ ñëw. baawar ma naa wax ardo damaa dem ba mi damay premier mu sol sax mm-hmm. mu naa man nii la de booy daan moom gars yi dañ la jomee boolu daan xam nga dara mm-hmm. loolu dafa ma soke woon nag quoi dafa ma wax garaaw si man mais tax ma mu ngi loolu noonu dëgg dama am ñoo xam duñ ma raay quoi bu ñu war a waxtaan dinañ waxtaan a wax dëgg dañ may wax dëgg mm-hmm. waaw bu mbalax juree dañuy wax dëgg juree dañ may wax dëgg parce que xooluñu sama dara man man ma def lu leen saf bu ma ay milliards du leen saf parce lépp nekk si man ñoo ko def si man ret daal ñoo ko jënd bu dee yére ñoo ko daan jënd xam nga bu dee bu yoroon war lekk mën nañ koy jox man lekk ko toog kon ñoom lu ma amee milliard du leen saf mhm. moo tax feesuma seen lu mun ma war a wax rek den ma wax kon nag ah, si sant yàlla bu baax mhm. xam naa man lu ma am bëriwul si mbër du ma jaay mhm. bu dee am na ñu may jaay am ñoo xam du ma jaay bu ma wàcc yoon ma tegaat si yoon bi te dama leen déggal tamit yàlla juwal na ma ak ñoom kon di leen bégg mel na ay baaba xam am Paa Diop xam nga yooyu dama des ci kaw chaque jour bu ñu waree waxtaan fula dañuy waxtaan fula mais bu ñu waree waxtaan si dëgg dañu may teg si dëgg même donc wàcc naa yoon sax ma koy tegar buy métti rek ma may nax yëpp mais bu ñu la waxee nit bu la waxee dëgg boo demee sa gaar ba tëdd di nga xam nekk si loolu noonu. Mhm. Jackson après nga jugee euh, ci ñaari défaite yooyu nga fay xeew am ñu la ñuy bàyyi la ñuy ànd ak yow. Mhm. nga jugee ci loolu jëlaat beneen combat. Euh. combat boo xamante ni tay mu ndax yow à chaque fois dañuy dégg nga ni man bugguma lu yomb. Ah. lu metti laa ah. jël tigre jël kii euh, euh, combat période dib boobu rek sang. non non ah. après kon kon da nga waat jël lu yomb quoi. non rawaan yombul boobu. mën a pour mën a kiiwaat defaraat sa kii. boobu rawaan yombul sax na boobu rawaan moo daan ay ñoom mbéy mi gars nga jël tamit combat rawoon. ñun bu ñu daanoo bu ñu daan yëpp man même bu ma bëggee loolu nooy ñu may àndal bëgg ñu loolu nooy sama gars yi dañ danaa man am boo ma dina la rey daal lu ñëw mu encaissé man même bu ma bëggee loolu nooy ñoom jël rawaan. yàlla ma ñu ndam jël suñu temps boobu laa mos bëri xanaa deux minutes wala une minute affaire yooyu noonu mais dama yàlla ma ñu si ndam. ma Tamam taxaarlu ko yàlla may ñu ndam. Mm-hmm. après nga jël ma jël bulaal. bulaal benn. bulaal waaw. Uh-huh. ma ñëw tamit xam mu nekk ak combat bu diis ñu jëlaat ko yàlla may ñu si ndam. ba pare bulaal dafa la jàmbaar la tamit moom tamit. Mm-hmm. te adversaire la taay na noonu. mënoon naa ko daan moo na ma daan mais yàlla moom suturaal la may ma ndam. ndax mm-hmm. ñu si ndam jëlaat sang. ñu gis ni combat boobu. Hmm. ñu bari sëriñ la découvrir. ndax ak sang. Hmm. ampleur bi mu am. Hmm. ñu gis ni Jackson ñëw état de forme di wax à chaque fois. am na ñu bari sax xamuñu la ñu gis ni combat bi. macha allah nga teel a say say supporters sa combat ak kii mën nga see ñëwaat sa combat ak sang. waaw combat sang dafa nekk làmb boo xam ne dafa yàgg ñu tax bu mu taxawoon dafa noonu dafa metti woon. parce que boo leen taxaw ci début saison bi ba dernier moment fin saison bi nañ nañ ñu parce que moom na ma tamit man bëgguma ko na maa ko rawat en plus woon bu baax quoi moom tamit man daanaka man bëri ñu ma si <laughs> xam bëri am man nu ma ma xam si mbëri nu ma xam si mbëri bëriwul man. ay ñoom baax sax ñoom it gis ñoom am. bu am dana man Jackson diw mën nga koo xaw ma ko. parce que man daanaka ay yu bëri du ko seetaan man lamb yu bëri du si seetaan moom la ma ko waa amoon entraînement koo xamul ma ko xamul tamit ñoom am xam nañ ko ñoom baaw nañ ko. mais tamit ñoom li ma wax loolu laa jafe ñoom lu may bëri ñu koy bëri de. Mm-hmm. waaw. après mu taxaw su fekkee saison bi ñu taxaw mu dundee mu wax ni mu wësal ñu jël ko. Mm-hmm. donc jëlee mu taxaw ñu bare mm-hmm. waaw moom tamit daan la champion la tamit. non naxuma ko sax dama bëri sama xel rek ak bëre bu nekkee si yow ku la fekk rek mën nga bëre sàng nekk moom da xam naa nawloo ma woon quoi des na ma des na ma kii xewoon na moom tamit te yaakaar moom man mais jàmbaar la moom tamit xam nga jur boobu yàlla moom waroon may rek mais def na lu mu waroon def lépp man du ma ko blâmer si loolu noonu gisuma heure bu mu def si laamu ji mais boo waree ñàkk da ngay ñàkk amaana jur boobu yàlla mën na faral rek man daan ko quoi. ah musique boo koy def pour man da ngay wane loo xam tax na li musique la quoi mais man chaque jour suma laam damay la wane faara ba dem bëre a xeex par rapport musique feeñu fa. non man moom dëgg yàlla loolu gisuma musique quoi en plus tamit mm-hmm. man yooyu daan am laa am sax dafa may woote nan dañ fii sax du ma dem ah kon nan wax ak am am mooy raw loolu loolu moom <laughs> <laughs> <laughs> ah non ah du sax sangoo. non sérieux man wax la musique man ay dem sëriñ sax yomb ma. waaw ah, te la laay waxee ay dem sëriñ naa ñaanal ma sax yomb ma. mais sa waaye moom sax mu ndaw la yor fu ne lay dugg man amaana boo nga laaj dina wax dara si yéen. papa ah. euh, après nga Jackson gars ne. ay combat boo xam te ni da ngay kii mu tudd dañuy xool ba xam di nga mën a yëg sa combat ak Pape Ndoye pourquoi Pape Ndoye lan nga bëggoon a wone ak combat bi lan def wax chaque jour rek nit ki ko xamoo ko c'est que man leen xam te ñoom duñu ma xam. ndax la. peut xam nga ne bu bu xeeb nit quoi nit ki chaque jour rek booy nekk ak nit la nawloo ko quoi dama leen xam chaque jour dama leen xam te ñoom duñu ma xam. dama leen bàyyi xel mais ñoom du ma bàyyi xel xam nga combat bu métti na woon na mais man jàpp naa ne fa ma ko jàpp laa mu jeex. foo rek ak lu may jàpp na moom tamit fu ma jàpp laa mu jeex ndax gëm-gëm moom tamit tout le temps ñun dañu may xeeb quoi loolu moo leen trompé en plus tey duñu ma xam bu baax parce que man gis na man média rarement laa si génn star rarement laa fay dem partout rarement laa fay toog bu ma bëree bu ci si pare pare naa si damay nekk si leneen. du ma wax wax ju bëre du ma sonal kenn du ñëw stade dëkkandu fii xam nga plateau man rarement laay toog plateau bu dem stade dinaa dem stade ba ñëw kenn wax ñu gis hmm. hmm. ñoo tax ñoom ñoo la may hmm. euh, euh, ni sa adversaire seeti nañ ko. combat bi. entraîné wu. Ah. dafa feebaroon. Ah. carrément. ne ah. waxul nag ci benn cas bi bëri ngeen yéen ñaar. bëri ngeen yéen ñaar. mais boo gisee li mu expliqué seetaan nga Pape Ndoye. seetaan naa ko waaw. waaw wax koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm. waaw comme moom lu mu wax moom su moom la nekk moom man nekkuma si moom moom moo xam lu nekk si yaramam tamit xam nga amaan lu mu wax tamit dëgg la parce que tamit ni ku nekk yaa xam lu lay metti nga xam lan moo nekk si yaram nga ñaanal tamit lu koy métti yàlla na am tawféex bu baax a baax waaw bu amaatee combat yàlla may a ndam di nuyu grand frère la grosse jantal grand la di ko ñaanal na wéraat ba bu baax a baax. Mm-hmm. jàpp nga ni dafa feebar moom moo tax kon combat bi demee noonu kon jàpp nga loolu. kon xam nga ne ku feebar nga doon bëree. non Pape Ndoye déggoo ma wax de. ah non non mbër xam nga nag yow mbër lan la mbër <laughs> instant bii xam nga yow. da bokk léegi instant ci booy yi. Uh-huh. te mbëri am na lu lay jawee. Uh-huh. da nga bëri Pape nga daan ko à la manière. Uh-huh. ko koy wax da ko dóor mu daanu. comme xam nga dafa feebaroon. dafa feebaroon mais xam nga ni kon mbër bu feebar nga bëree dóor ko mu daanu. xam nga ah bu naa feebar yu bëre loolu bëri na si mbër yëpp. Hmm. man yàgg naa tawat di bëre yàgg naa blessé di bëre yaa ngi dégg. mu amaana lu ne si yaram moom moo ko xam mais jour boobu Pape Ndoye ñëw na naturellement ñëw na pour bëri si ñëw na pour pour dóor ma ma daanu tamit. ku la Pape Ndoye daa ñëw pour dóor la nga daan. Pape Ndoye ñëw na pour bëri Pape Ndoye noonu lay gis wax na ko nee yàgg naa bëri muy bëri dam mu gën métti feebar ah. yow Pape Ndoye nee na ba mu ko dàqee mu daanu dafa ba mu ko dàqee mu daw dafa naroon abandonné la loolu mu gisul moom moo tax. non xam nga loolu lu ma ko balaamee si loolu yëpp mu si balaamee. d'accord yow mbër mu feebar nga bëree ah, mbër. waaw loolu yëpp mën na nekk mën na ah, nekk mbër mu feebar yow Pape Ndoye yéen ñaar kon Pape Ndoye promoteur bu leen fekk si woon ah. euh, jox la Pape Ndoye di ko jaar di ko may revanche ndax Pape Ndoye léegi wér na te ku hmm. feebar nga bëri loolu daal. <laughs> dégg nga wax hmm. Pape Ndoye feebar na feebar man loolu moom si moom la nekk. mais bër déggoo li ma la dama question réponse <laughs> Pape Ndoye dafa feebaroon ba muy bëri ak yow. Hmm. Pape Ndoye entraîné wul. Pape Ndoye moom ndeysaan combat bi da koo ba mu jeex léegi yow bëri nga ak moom daan nga ko. mais est moom si ñaata bi doon na wax loolu noonu. ah si scientifique yéen ñaar doog yéen. scientifique xam nga ñu ñaar waxante nañu waxul la feroxul dara. na ma wax affaire yooyu. Ah. dafa yàlla yàlla taw weex. mais mbër mu feebar nga daal. waaw baax ma la nekk kon su wéree pare nga pour kii ko revanche. man moom mooy la tout temps nga man dama ma ma daan hmm. ne waaw baax na. yàlla yàlla dafa jàmm yàgg na bëre di feebar di daan dafa bëre feebar tamit te bu mu daan bëre di feebar daan bu pare toog si plateau bi dama feebaroon kon dafa feebar ñu daan ko na sant yàlla nag ñun am na lu ñu dal si combat yu ñu daan mais duñ si wax dara dañ santaat yàlla la ñu utiwaat moom mënoon daan mënoon naa daan moom jàmbaar la man ma daan ko taxaw mu nekk yaa fas man ñàkk daan taxaw xam nga boobu ñu jàmbaar jàmbaar la ba tey ñëpp xam nañu ko jàmbaaram comme daan feebar di daan feebar ñu daan ko na yàlla rek dem utiwaat di ko ñaanal mu wér bu baax. beneen ah. mhm. bari sax dañu koy jëwee que ni. Mm. écrit bu ndaw a nekk. yow sa ma dafa des. pour ñu gis ay nit yoo xam ne dañ lay encadré très c' est très nekk écrit face. lu bari nag amoon benn saison boo xam te ni dañ koy kii dañuy werante ko. nga ñëw décider. gis état de forme bi nga simmeeku suñ Pape Moustapha Guèye sax. mu ngi koy wax lu koy nuyuwaale au passage. yaa gën a pare Pape Ndoye. ba nga déggee ak biir stade tamit. bi nga gisee Pape Ndoye combat bi euh, nan nga ko doon travailler. waaw mooy lu ñu la wax chaque jour nii rek la ñuy pare man mi wax chaque jour rek man rus naa simeeku ñun Jackson entraîné woon. ma xam lan la ma mbër lan la ma nit di jëppee wala ñàkk jëw du si entraînement du si ful ak biir géewam leneen li mais biir géewam si ful ak faare entraînement kenn du ma wax entraîné jël waaw chaque lamb amaana nag lamb ji la ko nit ñi jàpp Pape moom man moom si la nga soxla mais sax làmb boo xoolee sama làmb damay ñëw def la poids damay ñëw damay ñëw indi entraînement waaw ay équipe mag du ay staff ay mag man ma wër ñoom ñi seen bëgg-bëgg dañuy wax rek ak seen gis-gis mais man ñu ma nekkal ma sëg mën nañ ma pap mën nañ ma yaay mën ma tonton mën nañ ma lépp. ko pap pap moom laa yàgg jël. bii bii non rawul moom laa yàgg jël da nga gis bii nii rek da nga seetlu si bii. mais doon daan bi da koy ndaale. ndax gis nañu sa làkk taake. Hmm. arbitre bi sifflé na. léewtoo nga. def nga nii xam nga décidé mais bëgg koo humilier quoi Pape Ndoye ndax yéen ñaar hmm. waxante ngeen. nga ni ko kii na la dama lay sànni ci journaliste yi. Hmm. kii na la man maay trip dip nangam. combat bi ñëw arbitre sifflé ko Jackson ngay déplacé wu mën ngaa ñëwaat ci combat ndax gars yi nee nañ doon daam koy daal de laptaaka bi yaa doon kii. waaw ñun sax làmb dañuy désiré sax làmb bu ñu nee dañuy wane fu xam nga xam nga arbitre suuf la moom la wax chaque jour rek ñun chaque jour ma nawloo quoi dañ ma jàppee comme mbër xam may ñëwee sedd nii affaire yooyu mooy loolu noonu moo leen di sonal quoi ñëw mu dox sama kaw ma gëdd ko dóor ko góor droite mu reculé ñëwaat ma song ko mu épercule ñu léetoo waat ma doxal si kawam dóor ko ay droite mu daw génn xam nga. daw génn boobu nee na instant mhm. daal la doon abandonné ci moom mooy yeewuwaat après yow. non ku yooyu comme daal luy métti dina yeewu. Hmm. kon kuy moom moo kii. kuy boo mu yëg ko boo ko dóor koy gàncax. kon dóor dëgg ngeen moom dóor mu koy man dóor naa koy ku. sant ngeen dóor mu koy ku. moom sant na lool sax moom. centre na jël na ay ko. Mhm. Jackson PAM doy nga nga dóor ko. Mhm. mu génn après gën ko at ñëwaatal. Mhm. après ñu gis ni nga commencé di jaay boobu noonu confiance bi la wala nu demee noonu. non ñu jël sama dañuy jàpp mën na daan ba ba lu yàlla def. avant ñu avant ma koy dóor muy daaw noonu sax jàpp naa kii bu koy dóor mu dama ko dama koy dama koy daan. parce que naan état de physique bi euh, moom wax dëgg yàlla ma ko jàpp naa ne kii moom xam naa fi mosul ma yëngal. ndax naa maa gën a pare physiquement maa gën a ñu taxee nii arbitre bi waa suulee noonu xool naa ko kaw ba suuf mais xam naa ne kii maa gën a pare man ma yëngal fenn. Mhm. avant boobu tamit balaa mi taxee jour ma jëlee avance bi jàpp naa kii boobu ma ko jàpp dama koy daan man noonu laay man noonu laay doxalee ko man lu ma yaakaaroon man gis nga xoolal bu ma xëyee sax di nelaw am woo ma avant dama nga laaj ko dama nga am bu ma wax ay man bu ma demee bay peese cent kilos la amatul ku may ragal si laamu ji. combat bi jeexee ci tool hmm. yi daal. Hmm. après ñu gis ñu nag wax ci bari parce que nag nga commencé xew nag wax dëgg yàlla moom gars dina bàyyi xel bu baax a baax mais doomu daal ba nga dooree par doomu daal. après du si yow. man combat boo xam ne man ma xewloo. na ba ngay bëri loolu buzz ma may buzz man maa ngi ñëw stade fi du mu fees dell yëngal stade ba mu yëngu jógu tëggal ma laabli bu sab saab loolu moom am buzz. Pape Ndoye daanaka tax ma am buzz. Hmm. ba léegi nii nii laa mu amaguma si dara parce que boo génn fii laaj ñu kenn xamagu Jackson man naa tànk du ma dox dox si mbir fu ma turó ñun ma jag ba léegi mooy loolu dafa monta si làmb te du si kanam rawul bët